mbokk gis ngeen jàkkaarloo Balla Gaye Tapha Tine li ci jot a xew suñu maxtaar ne ma am na ci mbër moo xamante ni jaru woon muy teew ca jàkkaarloo ba ndax fa la ñu ko naxee ba daan ko dinaa ko laaj ban mbër la dana ci dugg andi ci ay leeral mbokk yi jëmm ji nee na ma tey ma wax la làmb yi ba ci combat Modou Lo si tabi dinaa leen wax kan mooy daan gëj ngeen koo gis nag muy borom xam-xam di borom baatin diggante Balla Gaye Tapha Tine kan mooy daan li bokk na ci li ñu gën a yokk ci andi ci këram mu ne ma kaay ma jël sunguf si xëpp ko ci ndox mi am lu ma la wax waaye kaay ma leeraal la ndax làmb ji dóor mu daanu lay doon wala xëcc mu rëpp wala làmb ji lay demee sëñ Maxtaar ñu bàyyi la nga nuyoo mbokki Sénégalais yi actuellement yow la réew mi déglu aousubillah min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai wal mursalin sayidina muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi xaq qadri wa miqdaari ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi di nuyu alamul islaamiya bi yëpp di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu mboolem turux yu nekk fii ci Sénégal nekk ci tarixa murit xaadir laayeen ñeseen tijaani ñëpp am niñ ko taamu di waxee ñu ngi leen di nuyu di balu àq sénégalais yi yëpp ci julli gi ñu jógee muy tabaski di tàllal suñu loxo ñëpp di leen baalu àq di leen ñaan ñu baal ñu àq ndax ñun baal nañ leen àq dégg daaj waaw lu may communiquer ci làmb xam naa ko lool nag ndax saalum laa dëkk te ku miin saalum xam ne am na lu leen yàlla dénk ci jat sunguf ak reen ak xob donte alxuraan nag mooy suñ cosaan. Mhm. Euh, dégg. waaw. combat Balla Gaye ak Tapha mhm. ñaar ñaar ñu war a bëre kenn ci ñoom ñaar am na benn blessure bu muy sooxaale. si bala ngaa dugg fii tey ñoo waxtaan ba ci kanam parce que am na foo xamante boo fa duggee rek émission mën na yàqu téel ma Balla Gaye téel ma Tapha Tine téel ma blessure bi nga ne am na ko ko ci soxaale si waxtaan dama la gis tey nga jël xeetu sunguf yu bari bokkul di ko sotti ci leget gi lii lan moo ko tax a dégg daaj dafa am loo xam ne nii ñun suñu liggéey la bokk na ci mbirum rawxaaniya dégg sunguf yi ngay gis nii nit liggéeyut ko. sunguf yi ngay gis. Mhm. duhut loo xam ne nit moo dem ci garab liggéey ko. Mhm. lii. ñaar moo ko mën a may nit. Mhm. bi ci njëkk mooy nga liggéey ci kurus. yàlla dimbale nañu ñu ñeme ko lool. di ci jaamu yàlla. ñaareel bi nga am li jaaba. mooy yàlla nangul la sa ñaan. ñetteel bi it. nga sell. yii boo ko defee dégg daaj. lii ku miin Saalum miin suñ cosaan xam na li ñuy wax tay mm-hmm. am na garab yoo xam ne ca Saalum boo demaan tayi fa. Mm-hmm. soo jëlee jaasi wala nga jël semmiñ wala nga jël dara ci lu mën a dagg rek boo ko boo ko càttee. Mm-hmm. dafay génne benn meen. meen moomu boo demee ca suba sax boo demee rek soo ko gisee dafay nekk lu mel ni genre singoom bu njëkk bu ba nekkee gone. moom lañ daan jël ñun di ko yëy. dafay mel ni mooy dàq singoom yi ñuy jaay ci ci ci ci ci boutique yi. bu ko defee nag masalan lii tamit dangay liggéey ay turu rawxaaniya turu rawxaaniya yooyu ngay liggéey masalan boo demee ci àll bi am na lu ñuy wax euh, këru melentaan am na ñoo xam ne ñu ngi koy wax xorondong soo demee ci biir xorondong da nga gis ne melentaan yi li ñuy bari bëri da nga gis côté bii dugub da gis da gis ceeb danga gis suuf naka fa naka fa melentaan di andee nga xam ne doo gis fañ koy jëlee ji di ko fa andi noonu la rawxaane yooyu di indee sunguf sii nii ci boo liggéey tur ci ñoom ba loolu nangu noonu la lay indilee sunguf sii nga fekk ci bërëb ba nga xamante ne ni fa lañ koy tegal sunguf yi nekk ay sungufu tooke dégg daaj mm-hmm. koo xamante ne nii juróom-ñaari sunguf yi nga xam ne nii maa ngi koy liggéey dégg daaj jëfandikoo nga si sa yaram mm-hmm. képp ku la joxoñ xamal na joxoñ na tooke képp ku dem ci sëriñ di la liggéey xamal ne mu ngi loor boppam képp koo xamante ne it dégg daaj nekk ngeen yéen ñaar Mouhamed Lambagne ci xolom yërëm naa ko te mbiram du baax dégg may ma may ma tuuti euh, pareeguma ci yi may def képp koo xam ne dégg da ngaa ne ci bërëb liggéeyukaay wala nga ne ci kër di fa sëy wala foo mënta nekk daal mu wóor na la ne yow fa nga nekk bëgg nga faa mucc léegi daal jëfandikoo lii boo ko jëfandikoo gisuma ci àddina képp koo xam ne dem na ci sëriñ sax di la jéem a liggéey bu demee sëriñ ba koy liggéey du la gis lii képp ku ko jëfandikoo sëriñ ba nga xam ne moom moo maanaam jaam yàlla bi dem ci sëriñ bi di la liggéey sëriñ boobu di def moom li muy def moom yow doo ci bokk yow bu dee lor la ak lu mënti doon loolu moom defi naa ci képp koo xam ne ñaankatu yàlla la ak koo mën doon ak loo mën a amee lii daal la dégg daaj lii may mujj def nii bant bi mu ngi jógee koo ci garab goo xamante ne nit daf ci xaru bëriwul nag lu muy am mhm. garab goo xam ne nit daf cee xaru moom moo nekk nii mhm. dégg daaj lii képp ku ko amee di ko soccoo wara a taxaw ak nit yoon mhm. lépp loo xam ne daf ko naroon a def mu jëm ci yow boo soccoo lii bu keroog da nga mucc ci moom képp koo xam ne da nga amee yoon boo war a uyu moo xam tribunal lu mën a doon nga jël lii soccoo ko wala nga mën a am sangat gi sangoo ko boo demee da nga mucc dégg daal lii képp ku ko amee di ko soccoo képp koo taxaw ak muy sonoon fa nga taxaw ak moom dana wane luy wane ne yow mi bëggut la képp ku ko amee it bëgg jëflante nit bëgg loo ko wax mu def ko mu mel ni néew si sa kanam soo ko jëfandikoo dégg daaj dana mel ni yaa ngi dégg néew sa kanam ba loo ko wax mu ci cangat gi tamit la jëm. dégg daaj waaw lii. lay mujjee. dégg gis nga garab gii. reen bi ci jógee ko nii. maanaam boo demee di ko gas. lii ngay am sens ci moom. jëlee ko ci moom. moom. te bésu altine nga ko mën a am beneen bés bu dul bésu altine garab gii mënoo wax ba dem gas ko gis ci ren. Eh, dégg daaj lii. moom nga ñu fekkoon ñuy liggéeyal benn jaami yàlla buñ mënta wax turam mu nekk kilifa lool ci réew mi te yaakaar ñu ci ñaan yàlla waaye bugguñu sax di ci communiquer lu bari waaye nag xam-xam moom képp ku ñu ci oo di ñu laaj danañ la wax waaye lii daal dégg daaj boo bëggee dégg-dëgg su fekkee ne doomi aadama bi bëgg naa mucc ci dundam mhm. ci àddina na jëfandikoo lii gisuma ci àddina mhm. nit ku yàlla may ak loo mën a xam nag même bu fekkee dañ lay rékki sax mhm. lii boo ko jëfandikoo nit mënu sulaa rekk ci àddina dégg daaj maa ngi fi bëgg a yàgg ak ñi ma fi nekkandoor ak ñëpp nag defe naa ne ñi ci bëri ah, dem nañ ba ma fi te naa fi yàgg waaye dama la bëgg a xamal ne du ma xeex man duma ma xeexkat ci wàllu baatin mm-hmm. waaye nag def naa ci suñu yaram yi loo loo xamante ne ni dégg daaj ak koo mën a doon nag ak loo mën a def mm-hmm. dégg daaj la def ragaluma ko ndax dafa mm-hmm. euh, muy da nga ne ma man li may gis ci seet c'est rarement nga gis sëriñ bu koy gis ci seet Sénégal nag ñu bari nañuy seet te duñu gis nga ne man seetu ma damay gis euh, seet laa bëggoon tey ñu waxtaanee ko. waaw ci tënk loxo laa koy defee. dégg daaj lii. waaw. yàlla bi mu bindee doomi aadama bi ba pare. loxo bii. waaw lépp lu nekk ci jëmmi doomu aadama bi. fii la yàlla jël tegtalu doomu aadama boobu jëmmam ak lépp lu aajo ci yaramam def ko fi. Mm-hmm. muy tënk loxo. olof di ko ko wax. Mm-hmm. dégg daal lépp li nit di am ci teraanga ci àddina ci ci loxo bii la koy jëlee lu mu mënti doon moo xam trophée la moo xam alal la moo xam moo diplôme la lu mën a ne rek fii nga koy jëlee dégg daal juróomi baaraam yii moom moo taxawee biddiw doomu aadama soo demee ci biddiw da nga gis ne biddiw juróomi ceeneer la am juróomi ceeneer yooyu moom mooy jëmmi doomu aadama soo xoolee dëmmi doomu aadama masalan sax danga nga gis ne doomu aadama bi ci boppam boppam ak ñaari loxoom ak ñaari tànkam la muy juróomi feeñuwaay yoo xamante ne ni tey boo duggee ci wàllu xaqiqa moom moo dem ba ci ponk lislaam yi ñëwaat ba ci waxtu juróomi su ko defee nag tënk loxo bii nii dafa am ay signes yu ci nekk yoo xamante ni dégg daaj mhm. képp koo xam ne tàllal na tënk loxoom nii ma gis ko man mhm. ba nga juddoo ci sa ndey mhm. ba fi nga toll ci sa àddina lépp loo mos a def loo xam ak loo xamul mën naa la ko wax sa misaal mi ci tënk loxo bi laa koy jëlee seet boobu nag dégg uh-huh. amul kenn ci addina waxtu bii may wax ak yow ku koy def ku dul man képp koo dégg it mu ne la da koy def xamal na ci man la ko jëlee ndax nit ñi li ñuy pirate léegi bari na uh-huh. waaye dégg seet daal boo bëggee dëgg dëgg uh-huh. képp koo xam ne yàlla dogal na ma gis ta tënk loxo bii lépp lu ma bëgg xam ci yow dinaa ko xam insha allahu taala te ci wàllu biddiw nag laa koy jaaree comme ni nga ma xamee wala ni ma nit ñi xamee ci wàllu ilmu nujum tey bu ñu nee Sëriñ soxna ñu bari xam ne wàllu rawaan ak biddiw eh, da nga ciy liggéey ba ñu bëri sax borom biddiw lañ lay dàkkantalee sëñ bi dama gis nga teg ay bougie yu rouge muy sondel ci ñu ko xamul waaye gis nga teg jaaro or lii tey bëggoon naa nga ñëw am loo ci leeral Sénégal lay xam. dégg daaj euh, dafay baax tuuti waxtu bu nekk. Mm-hmm. ngay wane sa liggéey. Mm-hmm. ndax nit ñi nga xam ne yàlla daf la boole ñoom ñu yaakaar la di yëkkati alal di la jox te yaakaar dafa foor euh, dégg nit dana bëgg am alal waaye nit dana bëgg a téye alal ci dégg daaj lii defe naa bëriwul loo koy gis ci sëriñ si wala boo ko gisee benn yoon la bugguma sax di ko génnee lu bari ndax li ma ciy defar du bari ndax or la yombut duma ko defar lu dul nit daf ko commandé te yi ma ci liggéeyoon mën na fukk benn ci des te jaayewu ko benn million yii li ci defar mat na fukk laa wax te benn bii moo ci des te jaayoon dama koy jaayee lu ëpp million dégg daa jaaru bii waaw dafa am secret bu ci nekk boo xam ne nit ñi Inde lañ daan dem di ko fa jëlee man du ma nëbb suma xam-xam Inde lañ daan dem di fa jëlee secret bi nga xamante ni moom la def ci jaaru or bi wala bene wala dëkk yi mel ni yooyu nga xam ne dañuy war di jëfandikoo wàllu xam-xam yooyu noonu mooy mm-hmm. xam-xamu jinne ak rawxaaniya mm-hmm. léegi nag ci mbaax ak yàlla du damaa dem Inde jëli ko fa de wala bene de mm-hmm. déedéet damaa toog fii ci senegal comme ni ma la ko waxee tee suma kurus di jaamu yàlla ba am ndigal ci lii ma lay wax nii te lii secret bi maa ngi ko maa ngi ko jëlee ci gént te kere ba ma ko jëlee ci gént jaamu yàlla bi ma ci njëkk a waxtaan muy borom xam-xam ba ma ko ba ma ko ba ko waxee daf ne ma loolu nga amee de nit ñi balañ ko doon am dañoo dem indi wala benn jëli ko fa te yàlla may na ma tur woowu noonu ba maa ngi koy liggéeyal ay nit dégg daaj képp koo xamante ne nii am na jaaru bii or la yombut nag maanaam yow tàggalikoo nga ak ñàkk ci àddina te soo génnee àddina yal na yéex loo fi bàyyi ci alal danañ ko donn te buñ lay miraas danañ la miraas lu ëpp at du jeex. kon alal gën a bëri secret bii li ci ne dama ne képp ku ko am. yal na yéex nga am ko di dund da am alal boo génnee àddina danañ la donn te buñ lay miraas miraas ma dana ëpp at. te képp koo xam ne it bëgg naa am alal téye ko takkal jaaro bi ndax am alal yomb na waaye téye moo jafe mhm. am na ñu bëri ñoo xam ne mën nañoo am ci at mi téeméeri million wante pour ñu téye téeméeri millions yi dafay nekk problème mhm. jaaru bi boo ko amee dafay dafa lay alal ji jigéen joo xam ne am nga ko mhm. dégg daaj takk ko ci sa loxo joxal loxo Médine wala nga jox loxo dégg daaj lépp loo ko wax dana ko def déet kon jaaru bi dafa am nopp nopp bu ci biir jaaru bi képp ku ko takk sa loxo nga am ko xam ne da nekk ak moom xam ne am na lu la mën a jëriñee ta jëriñut la wala mu am sax teraanga dégg daay boo ko takkee boo ko laajee dana la jox lépp te du ci bàyyi xel lu dul nga yërëm ko ne ko daal yërëm naa la soo ko ko waxee dana ko def amul looy wax nag nit soo takkee jaaru bi te du ko def hmm. surtout jigéen ñi nga xam ne dañuy am tey jaam yàlla bu ñuy génnat boo xamante ne ni du leen di jëriñ wala jëkkër joo xam ne du leen soo ko takkee hmm. képp koo xamante ni toog nga moom nga jël sa loxo bi jox ko ko hmm. nuyu ko soo ko nuyoo lépp loo ko wax mu def ko dégg daaj wax ne man sax jàpp naa ne ñi nga xam ne yàllaa ngi leen di may teraanga ñu am alal su ma xoolee seen loxo yi gisuma si jaaru bii damay gëm ne ba tey amaguñ alal waaw parce que alal tamit am ko mu toog ci say loxo. nga nekk ak moom ba génn àddina. comme ni ko borom alal yi bari di amee. nga ba fi alal joo xam ne nii say njaboot sax. du duñ duñ tal sax di la miraas ndax barke bi. soo amul lii ci sa loxo rek damay gëm ne amagoo alal damay gis xale yu bëri Sénégal. ñu am teraanga ma gis leen ñu leen di owee ay boroomi xaalis waaye su ma gisul li seen loxo rek damay jàpp na ba tey yaa ngi dégg amaguñ alal kilifa yu bëri na ci Sénégal moo xam yu diine yi moo xam yu aada yi ñi xam dëgg xam-xam soo xoolee seen loxo yi da ci gis jaaru bi bu dul or it ko gis ci beneen xeeti melokaan ndax almaas am na mooy jamaa am na tamit boo xam ne xaalis la waaye mu ngi dépendre ba tey rek parce que am na ñoo xam ne ci nit ñoom or rek la ñu a takk seen rawxaane loolu la laaj xam ne xaalis la ñu war a na ñoo xam ne almaas la ñu a mooy jamaa seen rawxaan moom moo laaj loolu waaye alaa kulli xaalin daal secret bi nga xam ne moo ci neen parce que jaaru bi dafay ubbeeku ci biir day dañ koy tëj nii day ubbeeku alaa kulli xaalin nekk ci biir moom mooy secret bi dëgg dëgg dëgg nag waaye rawxaan bi nga xam ne moom moo jàpp wi lim gën a bëgg daal moom mooy or moom moo tax ñu liggéey ko ci ci ci jaaro bi bougie yu rouge yi euh, tey bu ñu nee sondeel boo demee tey ci dëkk yi lu mel ne ay Thaïlande wala ay Vietnam dañu gis ñoom seen pouvoir yu mag a mag yi sondeel utiliser tey ma fekk fi ay sondeel yu xonq lii tam bëgg naa nga am loo ci leeral euh, ku miin xam-xamu rawxaaniya xaw ma ku ko miinu nag mais ku miin xam-xamu rawxaaniya jinne waxuma nag xale yi kebatu ci dëkk bi daan am nañ jinne kii dañuy dóoraateeg dañuy eew ak dañuy dañuy takk dañuy dañuy am dañuy dañuy dañuy kii dañuy dañuy wax waxuma loolu de ko ko am dëgg laa wax man nag su may wax man mag ñi am xam-xam lay wax ak xam na ne lii di bougie rouge dafa bokk ci xeet yi nga xamante ne ni rawxaan yi dañ koy jëfandikoo surtout rawxaan yi mag yi ak jinne yi mag yi ndax dafa am secret bu ci nekk soo ko xoolee fi mu ne nii boo ko xeñcoo da nga gis ne parfum bu neex bu dàq bi ngay xeñ moo ci nekk bu neex a neex loolu xeetu cuuraay la yoo xamante ni rawaxaan yi ak jinne dañ koy bëgg ku miin tamit tur rawaxaan yi bii di kas fa yaa ilu kilifa la ci rawaxaan yaay kilifa gu mag a mag a mag la ku ko miin te miin di liggéey secretam ci yi nga xam ne nii moom moom lay def ci wàllu amal ci li nit di soxla moom kas fa yaa lu ku ko miin xam ne képp ku ko bëgg liggéey mu jëriñ la ca lang koy oowee danga nga utiliser buusi bi buusi bi nag yombut bii déedéet nekkul lu yomb pour nga am ko yombut li muy jarit yombut waaye xamal ne daal du dox lu dul ci rawxaaniya te du du duur sax ci yaa ngi dégg ci ci ci lu ne lañ koy génnee ndax yàgg nañoo def jotaay te maag yow gisoo ko waaye ku miin daal rawxaaniya boobu di kas fa yaaylu ak la muy dox surtout ci wàllu alal surtout si wàllu alal surtout sax da nga gis ne bouse bi dafay bokk ci li ngay utiliser pour nga mën a am loolu boo ko boo ko boo ko defut mënoo mënoo koo gis sax ndax bala nga koo oo mën a ñëw rek faa nga utiliser bouse bi pour nga mën ko am. Euh, sëñ Maxtaar soxna borom biddiw yi tey bëgg naa laa laaj ci wàllum këyit ak wàllu papier papier dafa am waxtu wuñ ñaan mu nangu wala dafa mu waxtu ci ñaan euh, mu bañ a euh, nangu li ci bëggoon naa nga ñëw ci ñu bëree bëree bare bëri seen problème ñi mooy voyage yi bëgg visa ñenn ña voyage woon seen problème mooy ñibbisi lan mooy jàppandal këyit ci loo xamante nii lu tawféex lay nekk xam-xam la. Euh, ma wax ne. dégg daaj. Euh, maa ngi maa ngi digal suma mbokku sëriñ yi. ñu delluwaat ci sajaada yi. ak ci kurus yi. dégg nit mënta am ci yàlla lu dut mu jaamu yàlla. ndax ñun dañ fee gana si. dañuy dem. doomu aadama moomu dund dee la moom. alquran yàlla wax na xalaqal mawta wal ayaata li yabluwakum ayukum ahsanu amala nee na dee la njëkk a bind ci dund kon ñun li tax ñu am dund mooy jëmmi kii dund muy yàlla jëmmi yàlla jooju nga xam ne mooy jëmmi dund te moo fi nekk bu fi lépp nekkee bu fi lépp jógee koo moo fi des mm-hmm. kooku nga xam ne moom moo la fi bàyyi ci waxtu bi fi toogee kooku lim la sant moom mooy wamaa umiru ilaa li yaabudullaha muxlisina lahu dinahu nafa wa yuqimu salaa kon jaamu yàlla la la yàlla digal ci diir bu gàtt bi nga fiy def yàlla jël na xam-xam moom ci kattanam may la ko te mënoon koo may dégg daaj wala am na lu mu ko may sax wala mu may ko médun wala am na lu mu ko may wala na lu mu ko waaye mu dénk la loo xam doomu aadama ni yow dañuy ñëw cukk ci say soroon ñoo mag ñoo mat bàyyi di sàkku ci xam-xam boobu dégg daaj war nga sonnal yàlla sonn goo xamante ne ni la ngay jëflante ak ñoomu yàlla dana ci wasal barke kon li may wax sëriñ si moom mooy nañ bàyyi grand place yi bàyyi boîte yi bàyyi resto yi bàyyi lamb yi bàyyi leneen ak leneen ak leneen dellu ci sajaada yi toog sàkku ci yàlla ijaaba yi nga xamante ne ni tey ji ku ko am bu la nit diisee soxla ci noppam boo fanaanoog moom boo xëyee soxla bi alaa kulli xalin dana faju dégg daaj ñaanal nit yàlla mu yomb mu mu mu sotti wala mu jàppandal yomb na rawatina ci wàllu këyit waaye xam nga lu jafe ci jamono dégg daaj nga ñaanal nit yàlla ba mu gis la ko ñaanal mu ñëeku waat waat si yow ne a ah, man kat soxla ba ma la waxoon faju na nit ñi problème bi ñu am moom mooy soo leen ñaanalee yàlla la leen ñaanal yàlla yàlla defut loola sotti su boobaa moom am nga problème waaye boo leen ñaanalee yàlla ñaan nga sotti doo leen gisati doo leen sax yëkkati loolu bokkut ci ngor ngor dafay am njëg ngor lan mooy njëgam moom mooy nga sàmm ko nit ki jëflanteeg yow la muy jëflanteeg yow nga gis ko nga retourné waat ci moom ne ko ah man kat la nga jëflante woon ak moom man gis naa ko maa ngi sant maa ngi gërëm dégg naa ma ñaanal ci ay nit këyit mu sotti du jeex ndax wax naa ko waxati ko waxati ko këyit liñ koy ñaane këyit liñ koy ñaanee lu yomb la xobu taab xobu taab lañ koy ñaanee garabu taab moom ngay jël bind ci turur waa ji mm. moom nekk nga bind ko bu dee réew ma dafa am xaraf boo xam ne dafay ubbeeku mm-hmm. lu mel ni miim mm-hmm. wala yeneen xaraf yi nga xamante ni dafa niroog miim mm-hmm. nga ubbi ko dugal ci li ngay dugal ci biir garabu tab bi yóbbante ko ko mu sangoo ko juróom-ñaari fan la koy sango su fa toogee juróom-ñaari weer amut këyit na taxawaat ci internet bi dama sëñ Maxtaar li ma waxoon amut lii rek la ñuy liggéey kayit waaye dama ne la nag nit ñi ngorog ngorog nit ñaanal na ma yàlla ba mu nangu lañ amut li ñu am moom mooy ngorog nit jox naa ko suma alal dey jëflante nag man la ma waxoon gisuma ko hmm. na ma fay suma xaalis bi nit ñi seen problème yooyu yëpp noonu la hmm. moo da dégg daaj man dama demoon ba ba ba préféré sax hmm. te ci loolu laa nekk di liggéey ak ñi man demoon naa ba ba ba ba dégg daaj damaa damaa damaa futteeku man dégg daaj soppi suma lépp sax jublu ci jinne yi ndax gis naa ne ñoo ëpp jàmm te danañ la dimbale nga mën a jaamu yàlla ndax duñ la sonal jinne bala ngaa dégg ne jinne sonal la ni rek dafa nekk fekk mu nekk jinne joo xamante ni jinne yaa ngi dégg zulmaan yu la waaye bu dee jinne nuraan yi nga xam ne ay jullit la ñoom liñ bëgg rek mooy waxtu wu ne ñu lay gis ci ibaada ndax bëri na ay rawxaani yi wala ak jinne yoo xam ne suñu génnee dem fu mel ni màkka nekk suñuy ibaada ñu ngi dajeek ñoom ñi ngi jël ay secret di ñu ko jox jël ay trang di ñu ko jox ëpp ma alal ci sëriñ si ëpp ma fi alal ci sëriñ si waaye kuma ma gis da ngay defe ne maa ngi lu dul jeex loolu dara waraloo ko lu du lan moom mooy toog te am ñoo xamante ne nii ay jaam yàlla la li ma la wax ñu mel ne rawxaan wala jinne yoo xam dañ lay jox secret yoo xam ne boo ko liggéeyee ku la gis dafay fo ne yaa ngi ay milliards nag suura si yàlla rek ngay wéyee ak secret doomi aadama dafay am sirru ndax addina ci boppam dafa am sirru te addina siru moom moo ko amee te sirru koy moso amee ba ilal ëbët moo tax képp ku ci amul sirru nag amee lu leer loo xam ne sëñ bi da nga toog di ko doxee sëñ bi sa wax bu mu bëri sa génn bu mu bëri sa dox bu bëri siru bi ci làmb ji bëgg naa ñu dugg ci nga ne ma combat bi combat de choc la bi ci gën a ñor Sénégalais yi bokk na ci Balla Gaye ak Tapha Tine suñu dafa am loo tàmbaloon sànq da nga wax ba dugg ci affaire blessure làmb ji actuellement Sénégalais bëgg nañoo xam suma sac bii day sa loxo bi nga ci teg foog ne xaalis la def sac bii day dara ko fi bare sac bii day xaalis deful xaalis waxtu fa nga fi toogee ba léegi nag sa loxo bi ci nga ko teg foog ne dafa def xaalis dégg daaj doonju rek nga bëgg waaye xaalis la def dégg combat Balla Gaye ak ñoom ñaar kenn mu ngi ci sooxaale blessure dégg combat bi ñoom ñaar am na ci koo xam ne su rayee su rayee tuuree deret ci combat bi pers na ko falaa ci am si masaar loolu ci yem. nag yi nag ak ak ak gileem yi war a génn. ku ci ray perte falaa ci am lamb ji du lamb nag du lamb gileem kon. ku ci ray perte falaa ci yem man maa la ko wax ci ñoom ñaar kenn ci ñoom ku ci ray perte dégg daaj. fii ba novembre. lamb yi fi xew yépp waaw Modou Lo Siteu. Uh-huh. Balla Gaye Tapha Tine. ak yeneen combat yëpp mën naa laa wax man Mouhamadul Makhtar ku ci daan. ba ci rëg-rëg. ba ci ak Boy Niang naa laa wax kan moo ci daanu mbër yi nar a am defet yëpp buñ coupé laa bindal ci livre ci këyee nga fanaan dem téye bi di jeex nga set. ñu bàyyi la nga tàggatoo bu boobaa nag bu loolu amee fii ne ma lii nga bindoon ci këyit jox ma mu ngi nii. ñu bàyyi la nga tàggatoo dégg damay nuyu ñaari jaam yàlla mm-hmm. yu baax yu nekk bitim réew dañ ma may jabar ndeysaan dañoo am doom rek may ma ko te doom ji sax amagut sax ñaari weeru la ñetti weer maa ngi leen di nuyu di nuyu suma séeri dégg daaj eh, maa ngi maa ngi maa ngi sant yàlla bu baax beneen yoon eh, di gërëm képp koo xamante ne nii soppe la wala am di jàmm la képp koo xam ne nii soppe la wala am di jàmm la. maa ngi koy nuyu. dégg daal dafa am ñoo xam ne. ma dafa ma leen dara. ñu bëggal ma seen bopp te yàlla tax. te ñu ngi fii ci ndakaaru njaay man sénégalais yàlla dafa def ñu bëggal ma seen bopp te yàlla tax. ma leen dara dañ bëgg rek yàlla rek tax te lañ sax newut ci man. waaye nag alaa kulli xaalin euh, maa ngi jox suma loxo képp koo xam ne. jaamab yàlla nga fekk la fa nga toog di la balu ax di ñaan yàlla Sénégal gii yàlla na fi yàlla def jàmm ñu ngi jëm ci si nawet bëri na lool ay mbir yi ci feeñ waaye ñu ngi ñaan yàlla yal yàlla seddal lépp képp koo xam ne am nga doom doom ma ne li may wax nii dama bëgg ñëpp jot ci képp koo xam ne am nga doom ren soo ko mënee bañ a bàyyi ren boo ko mënee bañ a bàyyi mu dem vacances def ko. dégg mm-hmm. ndox mii ren. ndox mii ren. waaw neexut deret. géej dégg géej gi. Mm-hmm. neexut deret. Mm-hmm. ku ci am doom. na ko téye. bañ koo bàyyi mu dem. wala buy dem nanga nga ànd ak moom. mu xam fan lay em. géej gi ren. Mhm. dégg géej gi neexut deret laa wax. Mhm. képp ku ci am doom mu am sept ans cinq ans. Mhm. trois ans ba quatre ans. soo ko mënee téye sa kër daal. mooy li nga xamante ni alxaaji dégg daaj moom moo gën. xale yi moo gën de bu ñu mënee ñàkk vacances yi. moom moo gën. am na nag benn phénomène bu may dégg. bëggoon naa ñu ñëw ci xuus ci lu yaatu mais dama koy réserver beneen émission. muy wàllu rab. ndax dégg nga ne yow. dégg nga ko. dégg nga ko ne jigéen ñi dañuy jël. parfum boobu di doof. di ko def seen kanam yi. ngir di ci ut bànneex. dama fi defoon ay waxtaan ci émission. man toujours su may wax damay bëgg nit ñi di déglu li may wax. ndax loolu moo am importance man su ma jëmmu jee kan laa kuy wax amul importance la may wax moo importance. dama fi waxoon ne dafa am lu ñu wax rab. dégg daal rab dafa am. te dafa sonal jigéen ñi. ndax da gis ne léegi jigéen ñi. suñ gisee mbaax ba pare coton yooyu ñuy def seen kanam yi dañ koy jël di ko sànni ci mbalit mi su ko oto mbalit bi jëlee daf koy jël yóbbu ko mbëbës jinne yooyu rek lañ soxla yooyu lañuy ñuy jëfandikoo jinne soyaati nii su ko defee rab dugg la tàggali laa ko sago ngay def na ko surtout noonu lu ñuy def loolu li ñuy def loolu moom moo ci gën a ndaw dégg daaj mm-hmm. waxoon naa la fii ne la am na koo xamante ne nii du weer ko sax wala xaawi suturaam mais damay jàngale ci li ma lay wax mooy dafa ñëwoon ci man ndax dafay tur ndox te jigéen la jigéen la mat na sëy sax mais bu tëddee boo xewoo rek dafay tuur ndox te loolu nekkul ne moom moo ko tey ndax rab moom moo koy defloo rab nag dafa bëri nag lu muy defloo jigéen ñi rawatina jigéen ñi nga xamante ne ni dégg léegi fi nekk nii dañoo am yu ñu xewal hmm. da gis ne léegi jigéen ñi dañuy monté wee dañuy monté xef te yooyu buñ ci peree dañuy jël hmm. te gis nga jigéen tey ji da gis ne buñ jëlee seen cheveux naturel teg seen bopp buñ ci peree da nga gis ne boo demee seen néegi ko hmm. donc yooyu yëpp ñuy jël di ko xeeb mooy yi nga xamante ne ni rab yi nga xam ne ñu ngi leen topp ñoom yooyu lañ soxla di ko jëfandikoo moo tax ne ñu war a bàyyiwaat xel bu baax baax baax a baax ci loolu da nga dégg yu gën a yu gën a yu gën a yu gën yu gën a yéeme yoo xam ne jigéen ñi danañ koy def ci seen bopp lu jëm ci wàllu bànneex parce que tey wuñ ko ànduñoo ak seen sago yi nga xam ne moom moo leen topp dégg daaj moo leen ko def la léegi nag danaa ñëw ak yow ci jotaay boo xamante nii wàllu rab la ak lu koy faj ak naka lañ koy faje ak waxtu biñ koy faje ak bés yi nga xam ne nii mooy bés yi nga xam ne mënuñuy ubbi pour képp ko xam ne yaa ngi amee rab mu di la sonal di la def loo naka sudul noonu incha allah foo ñuy fekk ba ñu ba ñu tàggale ak moom bi isnillahi tabaraka wa taala sant yàlla bu baax di gërëm di wax ne namoon naa la lool nga dañoo gisee waaye nag bés ni ki tey jeex na euh, di ñaan yàlla liñ fi wax bu dee lu euh, jub la yàlla la bu dee lu damm wala lu am safaan ñun la ñu ngi sant di gërëm di ñaan yàlla yàlla yàlla def ci réew mu jàmm wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamina salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Euh, sëñ Makhtar soxna borom biddiw yi dégg ngeen waxtaan wu am solo yi waxtaan tey jëmale ko ci li xew ci réew mi waaye li mu wax tamit ci jaaro bi dégg ngeen ko dugg na ci rawaan ak rab tamit waxtaan ci li mu andi tamit ci buusi bi euh, muy secret yi tamit gis ngeen leeral yu am solo yi ci leeral. làmb ji dégg ngeen li ci sëriñ bi wax ay ci mbokk yi numéro yaa ngi noonu képp ku ko ci woo rek di nga ko jot yéen ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD yàlla ngeen bëri jàmm ci dara jëy